bu ñu nee kàddu yu mooy ki nga xamante ne àndoon nañ ak moom ay at ñaar fukki at ak ñaar ànd ak moom di liggéey muy maître Abdoulaye Wade liggéey bu rafet ñu sant ko bu baax a baax ci considération bi nga xamante ne amoon na ko suñu diggante ak moom kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaaral mu yàgg fi lool te ànd ak wér te it ñu ngi koy ñaaral tamit mu dem ba fekkee fi président Ousmane Sonko di nekkee président di mën a setal doomam yàlla mën na yàlla na ko yàlla def tey jii li ñu bëgg rek mooy yéen ñëpp ngeen xamoon ne ñun ànd bi ñu ànd ak ànd bi ñu ànd ak président Ousmane Sonko demande sociale la ci Sénégal demande sociale la ci diaspora bi demande sociale la ci bépp patriote boo xamante ne lu baax ñor na la bëgg nga lu baax bëgg ngaa liggéey sam réew kon ñun dañuy taxaw ànd ak moom te yàlla rek tax waaye nag ànd nañu ak moom ngir benn condition la ñu ak président Ousmane Sonko benn condition condition bi ñu àndee ak moom mooy lan muy ñu ñu ñu fexe ba 2024 mu jëlee ñu fi Macky Sall te loolu yaakaar naa ne man na ko ndax li ma gën li ma gëm te muy lu wóor muy lu dëggu mooy ñi fi nekk ñëpp kenn lañ xam ne moom rek mooy solution bi ci senegal nga xamante ne bu jëlee réew mi dina teg ci réew mi yoon. dina teg ci réew mi réew moo xam ne réew mi yoon lay doon te it def lu ne weng te dara du la ci fekk du fi amati sàcc bi ñu sàcc àll réew mi boo ko rawal ba tax ñuy lewal troisième mandat kon ñun war nañoo jug taxaw ngir loolu ne non lii du am te loolu président Sonko kese rek kott lañu am ci moom yaakaar que moom dong mooy solution bi kon na président Sonko dalal xelam xam na ñun dina jóg taxaw ànd ak moom ba li mu bëgg ci réew mi. ñu xeex ak moom ànd ak moom xeexal ko bam jot ko parce que tey jii kat réew mi yàqu na ku nekk xam na ne dund gi seer na ku nekk xam na ne maanaam faju gi demewul noonu ku nekk xam na ne ñàng mi baaxul parce que tey jii ñaar yi nga xamante ne ñooy yor ëllëgu réew mi di jàngal suñu doom ñu jël alal ji di ko sàcc di ko yóbbu fu ne te ñoon ñu waroon leen a fay jox leen ay indemnité ba nga xamante ne li ñu bëgg muy suñuy ndaw yi ëllëg ñu jàngal leen ba am xam kon ñooñu waruñu leen jël di leen néewal doole di leen bañ a fay ba ñuy gërëf kon na ngeen jàpp ne solution bi président Ousmane Sonko rek la